la waroon xool ndax sunu parenage jaar na yoon sunu parenage parrainage député la donc day jàll pexe yi moom moo di que ba ñu accéder dañ ñu nekk seen dossier motul te récépissé yeeg yëpp yor nañ ko ma ne leen yéen membre yi toog dossier complet lañ leen jox Badio Camara ne que lépp loo fi indi mu doon ci dossier mu doon ci ay bataaxal yëpp wane nañ ko commission bi réunir na ba pare xool gis ne que manqué na pièce te commission bi mënul réunir te fekk man fekkewuma ko pour que ñu war a dajji enveloppe bi nga xam ne ci laa def kayit yi dañ koo sele pour que ñu vérifier ci sama kanam wante ma xam ne que donc wax ji du ci ñoom kaddu yi ci réew mi la war a dem kàddu bi ci communauté internationale bi la war a dem ñu xam ne lii ñuy def ay caaxaan la lii ñuy def jaarul yoon